ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله olarak bağlı. assalaamu aleykum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 فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاشكر الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإن ما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه wa waylun liman qaadahu iblisu ila ma shaa fa innahu yulaazimu ma axza wa asaa qaala allahu tabaraka wa taala wa ma aataakum rasulu fa xuduuh wa qaala allahu tabaraka wa taala faman yacmal mithqaala darratin xayran yara fa tuuba liman axada ma ataa bihi rasul alayhi bi aalihi wa sahbihi salaama mu'ti suul وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصوابا فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتقوا الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته وإن من لم يتب منهم توبة نصوحا faqad amarahu man waa'adahu nasiiha rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'da idh hadaytanaa wa hab lanaa min ladunka rahma innaka antal wahhaab rabbanaa ighfir lanaa wa li ikhwaaninaa alladiina sabaquunaa bil iimaan wa laa taj'al fii quluubinaa ghillan lilladiina aamanuu rabbanaa innaka ra'uufun rahiim. Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلاماه بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق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 wa yakuffu ila gayrikum dhawi tughyaan wa tawajjahu ila rabbikum bilkitaabi wassunnati walijmaa fa inna allaha tabaraka wa taala yakfiikum man abaw fiihi alijtimaa bijaahi dil ghazawaati almurdiya sallallahu alayhi wa aalihi wa sahbihi dhawi alardiya alhamdulillahi alladi hadaana lihaadaa wa maa kunnaa linahtadiya lawlaa an hadaana allah الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتأث ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم mbokk julli maa ngi leen di ndokkeel ci bis bu tedd bi xaasa ak ci fukki fan yu tedd yi amma nga xam ne jëf ji baax des ci ful yool ba ab safa nit ñu ciy ful mbugal ma laa qadar allah awul nag jënd jëf ji baax jub jaam mën a def ak lum réy réy te yàlla farataalu ko ci moom demi ne kii juróom man am wétal ame ci tabaskiam ci tuyaaba ak doonte ne dafa tabaski tabaski ma gën a suufe daraja ci tabaskiwul daa goreel lu dul jeex saraxe lu dul jeex lu baax lu mu xam mu def ca lu baree ba lu tax kii lim def li muy rëy rëy li muy bari bari ci coobaram la ko defe kële nag lim def ak lum néew néew dundal na ci sunna suñ fedd sax su war nga gis dundal sunna ni mu ëppee doole jëfi coobare ak lum rëy rëy ak li ci jaam mën a amee moom it nag ne ko jëf farata ëppee doole li yàlla farataal ci jaam bi mu def ko sellal ko ngir yàlla ba am tawfiix yàlla nangul ko ko loolu li ci jaam bi mën a amee yàlla rek a ko xam te moom rek a ko am rawatina bu dee ci bis yii nu toll ak ci weeru koor ci fukki guddi yu mujj ya rawati di bis yu nu war di dollee góorgóorlu ci def ndigal bàyyi ay tere te sax ci tuub ak jéggalu waasi al maghfira di suñ boroom te koy ñaan mu boole ci ñiy def lu rafet tam leen di fayet àjjana al muhsinina al mujzayna bil husna alladina yajtanibuna kabaira al wal fawahish tem na ñooy ñiy teet magi bakkaar yi ak jëf yi gën a ñaaw yi nga xam ne bakkan bu sell bu ne da koy seexlu te ñi koy jëf ak ñi ko dul jëf ñëpp di ci xam ne jëkkul illal lamam ñi nga xam ne seenu nekk doomu aadama bu taxee ñu néew doole ci kanam seytaane ak bakkan yi tamit du tax ñu mën leen a weesuloo ndawi bàkkaar yi duñ leen mën a tàbbiloo mukk ci magi bàkkaar yi gannaaw buñ tuubee la ca jot a rëcc ndegam amoon na bu fekkee amul woon nag mu gën di tawfiq te kuy moytu magi bàkkaar dee su ko topp goney bàkkaar te kon fi nihaaya day daal nekk ku amul bàkkaar te jullit bu defe naa ne loolu lay wut sëriñ bi nga ñaan yàlla defal na ko ci nga neelu bis bii ak bis yin weesu ak ngëneelul ëllëg ak gannaaw ëllëg te ñaan it yàlla saxal jàmm ci réew mi te di ko yokk te yokkit naataangeen mbokk jullit yi ne ci ajit yàlla sàmm leen bañ dellu ci seeni njaboot te nangul leen te bengalee réew jullit yi bañ mën a te noonu jullit yi leen di tasaare ngir mën leen a noot te loolu ak lu ne mel la yàlla di moytuloo bim naan waatasimu bi hablillahi jamia wala tafarraqu kon nañu jéem a jub lu sëñ bi ñaan ñaan jàmm itam am na ci loo xam ne noo ko war a def te noo ko mën a defal suñu bopp te mooy ñuy jéem a jub tey jubal sëriñ bi mun tax weesu digal ñu tere ñu ñaanal ñu war di jëfe ndigalam nag bàyyi ay tereel gannaaw gëm nañ ne weesu ñu dina fàttali ndigal yàlla ak i te bokk na ci lim ñuy digal muy jéem a jub tey jubal jub ak jubal fu ñu dem te jàmm néew fa buñ fa wàddee mu fekk leen fa wal aksu saxiix fu ñu indi jàmm itam buñ fa jógee jàmm ja dem toppi leen bu leen fa sàmmee nag ñu sax fa ak jàmm ja fii sàmm gaa ngay am ay bisa ngi ay bisa ngi nag yu màgg fa yàlla nu war cee doolee jëf-jëfi topp war cee doolee wattandi jëfi mooy jëfi topp ji gën a ràññi ko nag ci ku ko mën a def bu dee asgar di jullit moo xam mag la walla ndaw góor la wala jigéen ku ne fu dëkk la wala ku ne ci tukki bu néewul ci at bay def xat yu mooy mu wut lu lu ma tabaski tabaskee ci xar bëy nag giléem ndax maa amila aadamiyun min amalin yowma nahri ahaba ila allahi min ihraqi dam ila axiril xadis lim koy mën ci xar nag mu am at bu jàppandiwul mu am fukki weer juróom-ñetti weer bu eggul foofu lu néew néew mu am bokk juróom-benn weer bu dee ci bëy mooy mu dugg ci ñaareelu at nag bu dugg ñetteelu at bu duggee ñeenteel mu gënati gëléem ku dugg juróomeelu at bu duggee juróom-benneel gënati lu mu ci man doon it bu mu am jenn ayib ju fees ju bokk ca ñeent ayib ya ca hadiisu albara ubnu azib bu siiw ba bu mu am it ayib ju yem jenn ci ñoom te fees ayib ju yées jenn ci ñoom waxi nopp ñeenteel ñooy soox fat wopp jeex ba ñàkk garis ñàkk yuur bu muccee ci ayib yépp nag ju fees ak ju feesul muxtaar maa ngoog bu ci boolee jaxase weex ak ñuul am béjjën jaxase weex ak ñuul te ñuul ñuul ya bañ a génn lawar bët ya lawar gimiñ ga biir ba tànk ya kon dees na mën a wax ne niru na am xar bu yonente bi masa tabaskiyee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amuñu ko gis nettali ko wala lenn ci ñoom nettali ko te jëf ji jullit bi jëf lu mu gën a jege ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa baraka jëfe woon rek ci lay gëne fii ba sawaal di jot ci la def di gëne kum jàppandiwul ci moom fii ba jant bi sogganaa ëllëg ñeen ñu ne fii ba sawaal gannaaw ëllëg fu mu fi jàppandee baax na te bañ koo def guddi def gi it lu mu gën a jege yor yoru tey ci lay gën ba mu des ëllëg ca gannaaw sawaal moo gën a jege yor yoru gannaaw ëllëg waaye yor yoru gannaaw ëllëg lañ gën a taamu ci moom lii lañ tënkoon ci bis bi maa ngi balu ak ñëpp di balu it ak yëpp di maasala yu woyof ak yu diis tey ñaanal sëñ bi yàlla guddal fanam wéral ko àggaleel ko ay naalam te naanu ko ak moom ak kilifa yoon wi ñëpp yeneen kilifa diine yi itam noonu yàlla bàyyi yàgg leen ci kanam seen njaboot